ni bari na te ñaan nañ yàlla mu gën a yaatu d'abord dañu nit bu saako bu taxawul bu deful du taxaw li ñuy njëkk a xool mooy dund ñu nekk que nañu ñafe ba doomu aadama yëpp mën a am dund mooy que tey Yaye Dia Agro su ubbee sa compte boo ñëwee mën nañ la jox financé finance alimentaire bu dee yow ñu togg nga bu dee femme boo xam ne dafa bëgg a jaay si table yi defar ay champs de wala wala di jaay di jaayantu donc mën nañ ko accompagner defal ko lépp li nga xam ne lay soxla pour mu am ko euh, bu dee kii jaay restaurant et cetera et maanaam daal dañu commencé ci alimentaire ñu ne foofu doyul dañuy dem ci électroménager pour femme yi nga xam ne tey dañu soxla congélateur mën nga defar seen i jus defar seen i crème ñu former leen ci ni ñu defaree ba pare ñu mun ci jëriñu ak seen i glace seen i ndox jaay mais yamuñu foofu aussi. dañu dem ci doomu aadama bu nekk njaboot mooy sa jiital parce que jigéen bu amee lépp te njabootam dalul amul dara te xale yi pour nga dalal leen pour nga tàcc tàcc leen foog nga am télé donc ñu ne kon noonu dañu dem finance lépp luy électroménager mooy que jigéen bi lu mu soxla buy ventilo muy climatiseur muy télé muy lépp loo xam ne soxla na ko bu ñëwee fii yaay Dia Agro na ko fi am bi ñu jógee ci foofu tamit ñu ne dañuy puus dem ci jigéen boo gis am na borom kër wala mu am doom bu góor bu dëgër ñu ne dañuy financé ay oto dañuy financé aussi càq-càq nga xam ne xale góor yi dinañ mën a dem di def seen i livraison ñuy am seen i wéccet di ñëw di ko indi si di kër gi. yemuñu foofu aussi ñu ne bu ndaw si commencé jaay glace jaay crème ba commencé am jàppandal doomam jàpp ci ot euh, ci clando wala ci ci moto. ah li ci des na mooy jéem a defar kër ba ku leen fa fekk ñoo am tey yaa ngi ak góor aussi dafa taxaw ci loolu ba nga xam ne tey lépp luy meuble mën na la ko financé maanaam mën nga am salon mën nga am lal mun nga am sa lépp li nga xam ne yow day taaral sa kër yaa ngi ak góor la ko jàppale donc nag aussi bëgg nañ gën a yaatal gën a xuus ci yeneen ak yeneen yoo xam ne mi